poste bi diisul mën a def foog ma dugg town rek la last premier round koj kaar bi ci tali bi sëfër bi dóor ma code far apprenti bi fëgg wàcce ma dugg toog Versailles fekk fi maire yi jaay jën kaar bi na tekk na ñëpp ne selaw doo dégg lu lu wiiru ngelaw xaftaan muy laaj paas ku yoxal mu taxaw kaas xàmmee wul sax moroomu ndayam sëfër bi waaye di am bi xamadi dañu reew wa reew ba dof dañuy dund ci tali bi xam nga moos di tafatar deuxième année taxaw Não consegue, né? Mas não consegue, eu fui. Aí, eu não consegue. Não vai, ninguém consegue. Aí, eu não consegue. É não consegue, não fui. Yeah. aywa daaw. daaw bu sedd. Eh, jaa benn ndox ngay kii def nii. nga tàmm nga saa yu ma sama ndox rek nga koy kaf wéral nga ma keroog 100 francs fayoo ma ko ak sama eh, xaalisu ndox. mos a jël sa ndox fayu ma la. wóoru ma daal jox ma sama nga trop. waaw ah, léegi moom nga gratte ëppal. sama yoon nekk si damay jaay gaawal. yow bari fi démb fii la bi la indi fii nga doon xale bu ndaw tey nga commencé monter ay ans di tël tël di rafetlu doo tey. yow su ma jëloon si yow cinq ndox sa naa la fay. waaw daa war a 1000 francs laa yor booy doon wecce naa la ko fay. mais yoroo wecce soo paree jël ma samay 150 damay jaay. Ndiobo yow lan la yow doo jël sa temps yow kañ yow commencé mel nii. yow temps yi kan moo la yor sax da mool. waaye laa ko indilaa yow looy lijjantee si sama moolaay. yow ëppal nga de def nga ñu wax sa bopp ndax xale bu ndaw même pas bëgg nga bàyyi ma yéen waa garage bi nii dañ ngeen di di xemme waat xale bu ndaw laa bu lijjanti ku ma yor eh Ndiobo man ngay waxal wala da nga ma fàtte ngay tël di yow yow la am nga sens sax sa morom yi fi nekk yi fi nekkoon fii jaaykatu mandarin yi ñii orange ñii pomme ñii banana ñëpp ku ci xulul wokkal na la yow nag heureusement bu nga amee sens boobu la ilaha illallah yow mbay wax la sa bopp dafa jot man doomu géwél bi si nday si baay xool nga ma ba dama bëgg ñu ma fajar bu dee dang maa xemmem nga lemaat sa loolu te ñoo ko sa biir tubay fa dama bëgg nga rek na le eh waa eh njóoba njóoba yow léegi yow yow monte nga grandé yow bërgi dem bi nga ñëw fi nek xalé bu ndaw sama wet sa yaay ni la fi te nga commencé monter ay ange di cokkali mais du ma la wax dara fii garage bi la fii sa morom yi fi nekkoon yëpp ñam nañu yow moom li ma lay xamal mooy bëriwul fii ak deux mois di nga biir c'est sûr loolu dafa leer Amran dina la biira wala coxeur loolu moom se garanti moom demal rek ana waa dem si kanam ñëwal paas si kanam xaale waxal si kanam mu ñëw paas waay si tàng bi. bay dafa ne si tàng bi góor kii du paas. lu daa du paas. kii mag baayam la woon. mag baayam la la woon loolu démb la woon kii du paas. soxna yow moom doo paas. ah daal gëj naa yem genre xale yu mel sama kaar. déggal loolu. sulu bi bi bi neex na ma de. Ah.

nga topp kii naan ko zulu zulu rek xamoo zulu. waaw li zulu dawalal sa oto bi ñu fi di gëj heure boo bëggee dem jël ñëw yéeg doo fay. pare naa loolu dara. eh gos muy gaaw bu yaa si kanam de police yi bi jeex na bu yàgg. xam naa loolu. maa ngi di leen seen damay rogo jeeru. dégg naa la damay rogo jeeru duñ ma gis. maa leen mag ñoom ñëpp maa leen mag. sandarma si yëpp maa leen mag man maa leen mag duñ ma jàpp fenn damay rogo jeeru. waaye mbay dimbali ma mi man ba ma dalee dawal ñii xaw ma leen duñ ma gis fenn damay rogo jeeru xam naa li may def damay rogo jeeru moo moo tax mu doy war daal dawee ndànk nan laa mën a egsee fii di daw ndànk di daw ndànk yow fii fii du yoon bu dul yoon xale yi mënoo leen a téye seen doom yi yéen tamit téye nañu xale ah. mi yow yaa yaa tali a dama ni yaa ngi dégg dama ni dama ni lu xew déglu la ku am doom da nga koy téye ma ne téye nañ fii tali la bis bis dina ñëw ñu def ko pavé te oto yi dañ fiy jaar ma ni kuy jur na nga mën a téye bàyyi leen di jël seen doom yi dama ko dama koy leen di seen waruloo bàyyi tali bi ne di jaar ci mbedd yi yow policiers yi ngay daw alkaati yi moo tax ñoom daw xool leen xale yi loolu tey suñu doom laa wax xool leen yi mais da ngeen di nef di nef di nef di nef loolu ba ma ni ak njombar ba ma ni lëkk loolu seen doom yi mënoo leen a mënoo leen a sax am maîtrise boo leen béy. loolu sa yoon a ci yaa xamadi. yow yaa a xamadi. yow yaa xamadi ku réew nga yow. mani war nga wax loolu yow. mani yow war nga wax loolu yow. am doom da nga koy téye yow yaa xamadi yow. nga def falan yow. waaye del meeg seen. del ah, meeg seen yow yow kan yow. del meeg seen yow yaay kan foog del meeg yow Tawadi yow yaay kat yow xamoo ma yow yow yaay kat yow man xamoo yow man yow man la kat yow yow man xamoo man la kat yow xam yow yaay kat xamoo ma yow jo waaye ala waaw yow foog del nekk seen foog del nekk seen foog del nekk seen yow Eh, doucement rek bañ ko def doucement. ma ne la bàyyi doucement. doucement eh. dugal foofu eh, mbay doucement doucement. ko defal ñun mën naa la. laay laay laay laay. bi. oui mooy morceau bu grand nga joué fii. c'est ça xam nga fàttaliku. Uh-huh. ñu ko defoon benn benn benn maire. ndeysaan doom ji di jooy quoi. ñuy xalaat xalaat xalaat lan la war a jooy. muy wax naan comme dafa nekk ak yaayam nii quoi bu doon yaayam daf fay jógee tey ñuy woy woy bi nii quoi. Oh. affaire bu doy waar quoi mais affaire bu doy waar quoi mais booy. xam nga lu ma nam ah. su ma waxee doo ko gëm quoi. mooy loo nam booy quarante. dëggantaan. non su ma waxee ban année ban année laa ko gëj a jël. bi may def concours Oscar de vacances. oui booy loolu yàgg na. Oscar de vacances xaw ma ban concours la woon quoi mais booy tey il faut ñam ko quoi. maa ngi maa ngi seen léegi benn car di ñëw quoi. xam nga ak ak ambiance dama ko nam quoi. kon ñu xaar ko rek. waaw xaaral je pense que mu ngi mu ngi mu ngi kii de mais ese feesul ese feesul. ok waaw Okay, ok waaw c'est bien kañ arrêté tell fii. dañoo teel a jug. xaw a ciwul daal wala garaawul ah. Thank you. du borom parcelle a ngi nii naka mu gën naaj laa lay gis. allo waaw waaw sant dem. dem muy gaaw Demba Guissé xale parcelle baa ngi nii. <laughs> El yab naa ko sama car bi. ñi <laughs> may studio la jëm répétition mu yëg ma ne ko bëgg naa Demba Guissé nga ne ko mu ñëw ci car bi ak Wally Seck bi nga xam naa ne waxuloo ko. bu demee waal dina ko wax de mais hélas hélas defee yàlla xaw ma wax na la sama yóbbante xaw ma wax la ko mais wax naa pare kooku defee yàlla du ma wax dara kooku kooku mag dañoo xam maag moom dañoo xamante baax moo tax ah ndax de wax naa ko man sama kaari moom su ma la yóbbante nga bañ xam naa ne lu mu métti métti naa la kepp te su ma la keppee fii moom dama lay ruubee. yéen ah, ñoom Zarko ñoom El Hadj ñoom ñëpp dugg nga xam ne nit ñu baax lañu. waaw waaw c'est vrai tey ma xëy yable yow nga xam ne nga ñàkk ci ñaan yow tamit ma yable tamit xam nga. loolu mën naa ne tey du benn sens mérite la emprunté ah, nga xam ne foo leen wooyee Sénégal yëpp ñu gongo <laughs> keroog maa la gis si tali bi yaa pendoo gisee sa mag. pendoo waaw ngeen di def benn dio mais xaw nga xooray ah kooku defe naa mais xam nga fa nga ko rey. octave a a kaw dara. dama koy may loxo te ko. Ah, mais boo ko jéego nag dee ko baal yaay la xam de. non Demba yaay boo jéego del baale waaye lii ko def sa mag. dafa moo tax si génne ma woon ko si diwéer. ah mooy yoon ana waa waas nan waaw. Ah, mang ngi sant yàlla bu wer naka liggéey bi. alhamdulilah jaajëf waay. li nice na. ah merci merci merci. macha allah bëgg bu baax li ngay wëy. li ngay wëy koy ci harmonie. li def rafet na man xaw luy sa jàngat ci musique gu mais man da li ma si seetlu rafetul dara parce que musique suñuy woy normalement dafa am luñ ci wara a mais suñuy woy léegi do xam luñuy wax day bari bruit buzz rek lañ suy jëlee do xam luñuy def lum doon ñun luñ ci soxla ndessane comme suñu papa Thione ndem si yàlla papa tion papa tion ndessane yalla ndeysaan yàlla yàlla kawam. ni mu ko doon defee dafa rafet suy woy dafa doon lancé benn message boo xam ne am na mooyum doon wax danga si doon am loo siy ah, jàngat mais léegi musique léegi dafa mel ni dafa bëgg a yàqu yow daal fi nga ko teg foofu la yaa ngi ci yoon bu baax bi ana waa mën a booy bu bëri tiit ca kaw ca kanam daal Mwen se yon gay, boy. Boy, wè yon tou nou. Yon la yon. Boy, yon topo goz, mwen kero do goz. Kero do goz. Müzik dëgg dëgg day am ndeysaan. Waaw, day am ndeysaan. Comme ni ko waxee, suñu mag yu baax yooyu noonu, suñu papa Thion. Ay ñoom ndongoloo. Da ngay triste quoi, loolu la ñu solo si son. Mais léegi, nga topp goz bi la trop, doo xam lu wax. Musique tey nii, base bi dafa des. moom waa ji moom fu ko def moom baax parce que damay déglu son non damay déglu son macha allah macha allah macha allah solo. Dakar Dakar fajar takk dàll yi bëgg a dugg town post bi diisul lu ma mën a def foog ma dugg town rek la last premier round koj kaar bi ci tali bi sëfër bi dóor ma code far bi fëgg wàcce ma dugg toog Versailles fekk fi mairie jaay jën kaar bi na tekk na ñëpp ne selaw doo déggalu lu wiru ngelaw xaftaan muy laaj paas ku yoxal mu taxaw kaas xàmmewul sax moroomu ndayam sëfër bi waaye di am bi xamadi dañu reew wa reew ba dof dañuy dund ci tali bi xam nga moo moos di tafatar deuxième arrêt ñu taxaw xaar coxeur bi yebal kaar laaj mandat amp bi sii su coow li bëri da ñëpp di gestu jaayante pereg la ku la gën bandi la ku nekk ci kaar di dund ci kaar ni amoo